الله عدد علم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عدد علم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عدد علم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عدد علم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عدد علم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عدد علم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عدد علم لا إله Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah adada ilmi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah adada ilmi la ilaha illallah محمد رسول الله لا إله إلا الله عدد علم لا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عدد علم لا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عدد علم لا العليل الأمر لائم بخلق من عدم ثم الصلاة على مسرور في الخدم ومحمدنا أول العابدين وذلك القراءة من معدن العلوم بخلق من عدم ثم صلاة على مسرور في القدم يسبح النار وقتي لم يسمي الحمد لله في خلقي من عدمي ثم سالت على مسرور في القدم أهل الحقيقة قد مدة الاقوم ألف من القرن كل ألف نوامي kawana a ayta radi yal na gërëm allahu yàlla am naa ci ayta dana yaa mën a sa ni bàyyi ee mboolem jigéen ñi loolu tax la moo bu ngeen xamoon yaa xaswaaji ku na seen xàq jëkkër xale ku na ci yéen kon yàlla jaam dana def al maratu jigéen min ku na ci tam taw muy pomp al xubaaru kon dafa xajoo jaay ci ndagu jëkkër la koy xaj taw jaay ci la ko ca mayo mais bu xamoon suñu xàq jëkkër ñun képp ku sa ndagu ca maay ndagu jëkkër ci lim sa ndagu ca maay koy pompé bu xamoon suñu dëggu xàq jëkkër yi kenn o ne bu ko si jëm jëmmi jëkkër kat koy dëkk tam mooy mara ko daan kon bon soxna si yow mi jur doon ñu laay gërëm di la sant waaye góor gi dafa wéy teel ba maan alhamdulilah mboolem xaayi cant yi ñeent yu lay aji sax la ñeel yàlla mun ko barka yàlla maa ay sos mbinde min xaaral mi tëkkee ko sa ñàkk suma salaat dawi sa tawal ak alal ma broos yow la nekk di ko teddal koo ko yonant yàlla moom a tëkkal tamit di jiitu nee waa yëgal ne lama araada ba mu nammee illaahu haalami na buram bindee fi ibris saalami na feeñal bindee fi min sunat haram ñu tukkee di ko sag ñàkk lamaa xallamel xattee mi nuuri ca leerangu moom yàlla nooru na ba leer yonent yàlla moom al Mustafa ka nekin tànn ko ñu ne ko yow sëñ laaj Babacar ñu ngi lay la ana kira ba yàlla bindee leer ga ana lan la waxoon leer ga mu ne wax na nga nekk da sirul xaalamin da wax na ko moom yàlla ba tey li noori yi ñeel gëla leer yaa sunur eew gëla leer kun na nga nekk da xay bu sama soppi mu ne Habibu sama soppi ba nag man Seydi Laaji Babacar Ndaw Muhammad it mooy yonent yàlla Muhammad asli kulli na samay kër ci sant bépp mu ndeef mu ne min qabli aadama si njëkk suñu maam aadama taafa laay watee am xar saras sonoore googaleeg leer ñu ne ko yow Seydi Laaji Babacar na ñu ngi laay laaj ana kër ba yàlla bindee leer ga a lan la waxoon leer ga mu ne waqaa lay wax na ko moom yàlla ne ko li noori ñeel gi la leer yaa sunori eew gi kun na nekk da Habibou da sama soppi góor ga ne Habibou kay sama soppi nag man sëñ Laay Babakar Ndaw Muhammadin mooy yonantu yàlla Muhammad asli kulli na samay kër santi mbépp mi def min aadama si njëkk suñu maam aadama ba nga xamee ne bindaguñ dara nee na la leeram nga nekk da wëttu xaras dafa wëttu ñu ne ko yow sëñ Laay Babakar nañ laay laay leer gongaay wax ana lan la lëggee ak an yan xuquba la def mu ne a xàq ci ñoo la xàq xaala waxoon na ne muddatul xuquba diru xuqu bu nekk alfun junna la minal xarnu ci xarnu mu ne kullan xarnu bépp xarnu alfaamin junne xal la wa kullu xaamin bépp xat alfu sërin junne weer la wa kullu sërin bépp weer alfu yoomin junne bis la wa kullu yoon bépp bis alfu saatin junne saa la góor gën a foo jëf xiimal waaye ayamal xadim fanu jiite nee na ñett daari kulli saa kem yàggay bépp saa nag masli hamri duniya kem def ko dund si na ji sa peena alfon ko juróom-ñaar fukki njënd yoon góor gën a ajal màggalal waaye moo ko a rajañ yoon màkk alhaasi mi ko gën fa yàlla nee na tilka xebarat góoleeg jaamu dee maa baa ma su koy jaamu ahadun kenn xayru muhammadu naa kuru suñu yonent yàlla moo man mi xëyri kulli na samee koy ngënti mbindeef yi nee na sa maqaama ci boobale maqaamu dee maqaama ma su koy taxaw basarun mbindeef minal bërit ci mbindeef yi mu ne xul waxali si laaj Babakar Ndaw ne min kaafati xaali min ci mboolem mbindeef yi wayaa nan xoona ma ndokkel ci koo ndokkel wayaa xam daan xoona ma ci la nee na xat xan ba dal jaamu na al Mustafa ka rekin tànn ka xen bari tan jaamu goo xam ne laa tax te mën a koy dikkee jumlatul xaalimin ci mboole bindee fi mu ne xatta bala ko ba mu jot foo moom yonent yàlla Muhammad xaayiti da lay dayem ma yàlla nee na foofu la yonent bi waxee woon yàlla waxee yonent bi ne ko Mohamed kaay ma wàcc sama siis bi jox la ko ma nekk sa jaam dala jaam mu ne ko naa nekk sa jaam dala jaam mu ne ko bon moo tax ma bind ko booba la bind mbindeef yi pour ñu lëggeel yonent yàlla Mohamed sallallahu salaam dañ doon barkelu rek ci kàddu xale yi jërëjëf Aminata Ndaw rakk nga ci sëriñ bi kon ñu ngi bëgg a jox Basirou Touré mu wéyal Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam jërëjëf Aminata li nga wax ñëpp kontaan nañ ci jërëjëf. قرضناكي من كل ضيق وقمتي خرجنا بي بي وقمتي كوكو سيدنا محمد رسول الله ترى لينا ينا نستور مفق أسمان بن نيني كوكو كان لا سرير فارق bajinga samani mu ne man a jibril ne ko jibril waxal am na ko àndal yow rek sa mu ne la baaje asamaani mu ne seydul muqarrabina moom laa jëli mu ne yónni nañ ko mu ne waa yónni nañ ko ñu ne askay nekkaat ci duur adama ko teeru ak i malaaka ñu teeru ko gal ko rakkal ko ci ñi nga nabi sant leen gërëm leen tariqa ñoon ma kayaa leen gën ko sopp sayyiduna muhammad bis di isra wal mihraj moom la oustaz Babacar Ndaw di magal jasakumullahu xayran yal na la yàlla nim njëkk a bindee sayyiduna muhammad bi jaahi rasulullah bis boobu noonu moom la Oustaz Babacar Ndar di màggal xoo bokk yi xoo xarit yi xoo soppe yi xoo talibe yi xoo muqaddam yi waa wóllëre yi ne kenn ku ne na ñëw fekk si ma Ndakaaru ñu màggal ko ñun ñu jógee koo fee Saalum ñëw fii ci Ndakaaru ci Cambérène ñuy màggal Sayyiduna Muhammad ci Isra wal Mihraj yàlla nee na subhaana lazi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa ku sopp Sayyiduna Muhammad defal nii ñu màggal ko jazakumullahu xayran xayra jasaihi jazakumullahu xayran jazakumullahu khairan sayyiduna muhammad adama daka teeru waaye teeru gi ko adama teeru day tegtalee teeru ga ko adama njëkka teeru ndax bi yàlla bind yinti yàlla muhammad ci leer jël ci leer ga bind ci lan ca bind lépp jazakumullahu khairan aadama moo ci njëkk génn nekk mbindeef nekk doomu aadama yàlla njëkk koy yónni ci yonent yi muy yónneen topp njabootam yonent yàlla Muhammad mujj ñëw ci yonent yàlla war ko invité nga ne Adama comme yaa njëkkoon a yaa ko njëkk ubbil asamaan moo ko njëkk ubbil suuf mais it moo ko njëkk a ubbil asamaan mu ne comme yow yow yit Ibrahima comme yow sa ci la Muhammad di topp yaa koy mujj wubbil asamaan juróom-ñaar moo tax mu wubbil ko asamaan juróom-ñaar. moo jógee Koofar dem Sidratul Muntaha wéy ba fa soob mu gisee moom mu jox ko lan ko jox mu indi ko liñ ci mën nettali man ko utiliser attan ko mooy julli juróom ne nii ñu màggal Sayyiduna Muhammad yonent Yàlla Muhammad moo tax fama فما فما أحسن الإسراء من هين مسجد إلى المسجد الأقصى بالتي المرايل وأعظم بفارس وجبريل قادم والرسل قيار حاضرون لفاضل محمد عبد الله لينغا وخون ني وا سارو دي جانغال da ngay ubbi li nga am yëpp mais ndakaaru boo leen di jàngal da ngay xaw a comporté wu yor seen comportement lu ko moo ñu ne kii daal nit ak àll la mu nga jógee ko ca àll ba waaye nag ñun yéen ci yàlla Muhammad moo nu suub lu nu wax day daa di neex nit ñi fuñ man ne yàlla Muhammad la ñuy tagg moom la nuy kañ moom la nuy màggal moom la nuy bàkk kon ku sopp Sayyiduna Muhammad defal nii ñu màggal ko moo jara kañ moo moo moo jara way moo jasakumullahu xayra foo ko dégg borom am na lu mu jas moo jara may moo jara tantal moo jara bakk Abdourahman sa xel mi bu ko ci def nag ne nii ñu màggal ko ko sayyiduna muhammad rasulullah kon nak yéen ñi ci keur yi kep ko xamne ne ngant noo ngi sàkku sa teway fi ndax yéen ci yàlla muhammad ku koy magal aljana nga jëm bo fa tewé da ngay dugg aljana su fekke da nga romb rek wi da ngay dugg aljana su fekke da nga ñew joxe sa diya dem da ngay dugg aljana su fekke da nga ñew fanan fa da ngay dugg aljana soo fa toogee da wax da ngay dugg aljana dama ne yonent yàlla Muhammad soo koy tàgg da ngay dugg aljana dama ne yonent yàlla Muhammad su fekkee yaa nga toog nekk sa néeg munoo ñëw mais jàngee teel na lay nelaw nga ne ñii ñu may tànqal dama yàqal nelaw. bañ wax ci yonent bi benn baat mu neex la da ngay dugg aljana su fekkee neexul la sax mais dégg nga ko bam teeray nelaw aljana nga jëm du sama wax maam Maodo Malick wax na ko maam borom Touba yi wax na ko Cheikh Sida Jobar Ndaw wax na ko ne leen nii ñu màggal ko maam borom Touba nee fa may yoo asi mawlida نبينا باب الهدى فلا فلا فلا يعصب القضاء يرضى بمفهم قلب مباكي ما wax loolu ñu ne ko Maam Maodo Malick mu bihi sarafun wa ghiirun fabitawimi im ja usujuni ñun ñukoy tag tagg Maodo fama ñu fa madaxol fausun fawsun waxun mun fama haraja alayya min al da sociedad Omar ne ndama ga ca nawer bàyyi sama turandoo alaji Basir Ndaw ne yent yalla Muhammad soo koy waxuma aljana dafa sori waaye sa aljana yow dafay commencé fii ci àddina da ngay texe ba ku la gis xam ne yow nit ak aljana nga boo dee daal di dugg aljana sa texe du nëbbu ñu la ko bindal hakim jazakumullahu xayran yàlla buñ la xàtte yawmal nii ñu màggal ko wa kullu man jadda lil mawludi yamwimahu fa fawsuhu bi nabiyyin xayru munkatimi kon képp ku fi doon nelew jogal eh waaw ngeen wax ngeen naan un waxuma waaw rek de da nelew jogal tànk bi yëpp ñu naan waaw képp ku fi doon nelew jogal dale ma nii seen loxo ma ñëw képp ku fi doon elew jogal yow ñu màggal yonent bi maa di géwélam ma yeete waay na ngeen baaro rasulullah ma nii seen ma ñëw képp ku fi doon elew jogal yow ñu màggal yonent bi maa di géwélam ma yeete waay ngeen ma baaro rasulullah habadallah yey baayu nabi aminatu mooy yaayu nabi halimatu sobi napal nabi kon de jirim la loxo ca kaw شيبة الحمد هاسم عبد المناط سيك مرة كحب فقالب لأيد مام لتي رسول فكر ومالك ندر موي مويك نانة قسيمة ممدركة إلاس مدر بسام مام لتي رسول rabbi xam bu naan ma xaab. ñëpp seen ma mooy adanaan. bal xiira xiirati borom bu adanaan ci lim bi booy tàggara. rasulullah. way ko jafe. waaw suñu nekk ga dëgg moo fi gën. waaw ko bind ngir jaamama ja bindu ña ca des bele ma miisa na loxo yi ma ñëw waaw képp ku def miisa ay loxo waaw yàlla bu sa tiranga jeex amina bi jaay rasulullah ay nabi xam na ma buñ naan mahat ñoom ñëpp seen maam mooy hadanaan ba xiira xiirati ci la bi boy tàgg rasul loxo ca way ko booju ndaw loo jafe su nga nekki nga la moo fi gën yàlla ko bind ngir ja rekk bind ña ca des ngir rasulala samsul fadila mustafa mooy leeru leer yi moom la ñu tuddee xaatimu nabi i na wala imaam wal mursaliin mooy ra nabi lañ noo boo bëggee ñu gëm weer wi da koy xaramu ñaari gaay mu xar ko yiifir yanaan ja biir la koo bona du mën a bëgg rasulullah wax loo na mbëtt ma dox la wadda ta fa karna wer wa nyar ye feri nan ko siirun mubiinun ko bono du mana a ko ci ko way du ngeen def ni ngeen japp sen bop rek wala gam ak Dakar ni do mom gam ak Saloum de ñepp dañu ànd da def ni waaw kay def leen ma nii seen loxo yi ma ñëw maa ka mooy umul loxo yi maa ka mooy umul Mustafa doon xayrul wara ko mu dimbu yaa ngi mooy dara libaasu diina ji rafet amu dimbu bu yaa ngi mooy dara libaasu diina ji rafet nabi la noon boo bëggee ñu gëm nabi da koy xar mu ñaari gaay mu xar ko yiifir ko bon du mën a bëgg ra moo ca kaw waxloona mbëttma bawloo dara bëgga Mustafa xarna weer wa ñaar yi naan ko siirun mubiinun ko bona du mën a bëgg Rasulullah ma nii seen loxo yi ma ñëw may xubbu léegi sedd na dalawal yéli na romb na sama góor gi jolli na kon de ma mën a xam ngeen ne na bee ko jar jar na tagg moom bi xëy na mes keero bi suñu njéegi ma seera dañi ña daan tagg rasool xaaral ma wàññi baat bi ndax nit ñi mën a awu baax soo ma waxee mën a bu baax duñ awu barke ba rasool daleen ma nii seen loxo yi ma ñoom samsul fadila mustafa moo leeru leer yi moom la ñu tuddee xatimu nabiina wala imaamul mursalin mooy rasul ay nabil mustafa mulu morom diir mbagga du seen morom nabi ne bu leen ko diir mbagga du seen loxo yi bu leen ko diir mbagga nabi ne bu leen ko diir mbagga nabi ne bu leen ko diir mbagga nabi dia bu kodir ko diir mbagga du seen nabi ko diir mbagga nabi ne ko diir mbagga nabi ko diir mbagga nabi ne ko ko nabi dee bu ko diir mbagg dee bu ko diir du seen loxo yi ko fontoo du seen loxo yi ko fontoo du seen ay nabi du mos a doon morom mbiram yéemi na na bi rasul soo ko mosaan a jox loxo yaa koy njëkk a rocci say loxo teewut xam moo nga gëm loxo loxoom ba mooy loxo rasul salli xaala xayrul basar wa muhammad mi dëkku ñu defar moo ki saxabaat ya ñoo ko dara kon amina bi jaay rasul ustaas baakar ndaw maa ngi ñaan yàlla na ko yàlla jàppale yëkkati ko ba mu féetee kaw ca kaw أكون آمين يلنا آمين آمين بجاي رسول باكر يالا نغا ياغا نيو تي نيون يالا نانيو ياغا نيو تي ياو بتا اك لا من نوي تي ياو آمين بجاي رسول الله ngi ci li ko baayam bàyyi woon moo di bëgg yàlla aw ci yoon saalum fa nga yoon te ko ci baakar dundam yëpp moo di jàngale jàng alquran jàngale waa ci yónneen ak sunu tijaan kii moo ko roy sunna rasulullah na ko yàlla jàppale ku baakar defal ma nii baakar defal ma ustaas kee bàyyi Allah ko fal ustaas kee bàyyi Allah ko fal jox na ko lampam ne di ci ñiit ndaw ko ndaaki wala ma du jeex ji waaye roy sunna rasul ay dele ma ni sere loo koy ma ñëw dundam yëpp moo di jàngale dundam yëpp moo di jàngale dundam yëpp moo di jàngal waakar a dundam yëpp moo di jàng loxo yi dundam yëpp moo di jàng loxo yi a dundam yëpp yëpp moo di jàngale adduna yëpp moo ci yàlla ak nabi rasulullah asalli ala xayrul basar a muhammad mi dëkku ñu defar moo ki saxaaba ko dar kon amina bi jiyaay rasulullah ba kanam incha jeri Bassirou Touré kon ba ci kanam ñi nga xam ne daan ubbi gàmm gi ñëw nañ ñu nekk ay taalibe ñu nekk tawu taalibe ci kër gi mu nekk ñoom xaaji xam ne nañ ak Aboubacry Ndaw waa Dakar yi kon bisimilah ngeen ubbi sëñ Xaadim يا نبي ما يوصل أيضا سيدنا محمد أنت باب الإله أنت المرجى يزرق سيدنا محمد أنت من أدواء القلوب شفاء مام خليفة نسنانا أنت للكون بهجة وبهاء وتجلت بنور سلمى خلفنا أنت لولاك لم يكن كل كون ولما سال عن شيء شيخا كسب سيدنا محمد خلفنا فهو المقدم حقا في الخلق دون نداء فافهم لجم الخلال خلفنا سيدنا محمد بك أوسع من خمر آدم شريسا مم خلفنا لك تغتار كي تتيم نساء كسوك سيدنا محمد خلفنا أنت باب الإله أنت المرجع أنت من أدواء القلوب شفاء ما مولى وإنه البتر إذا لم يكن نهو الحرام حدولا مام قلب نسنانا مام مهود لأيوي ديكوتك نانقن إن المرام وإن الخاسي الحاري من اللي لخائل سيد الحاري كسبهم تواول ما بخلف لك ان المرام وان الخاص الحادي ما يمن اللي خالص عيد الحال دمنا بنان كل عيبة في سوى ما حاث من كرم ينسي الخريم ويدي خير من حال مام خليفة نسنينا يورا لدعي دوي ذكر يوقس من خنام في اللورة كنر أو سندود للباد من أقول لك خليفة الموضة رنجي ويمون ديرت لو خادم رسول الله من أقول سلام انقطع من شهود براهي ينوب عنا وسال الله مسك سلام كري المسك نفاته محترا بالنواء شيخ فواي سن بامبا نتلق على بنانك أحمر بامبا شيخ تقي نخي حيلم علم فما ثناء متري وأمداي ألحفنا بكتابي لا نظير له أروى خليل صدانا بعد الواي هو الجلالان هو الجلالان تفسير لمنسبكم خلفنا مصباح حلم كدوع سبل الماي خارم رسول الله خليفه مام قلبه تك ديك دغلو منك الى الحاج نرجع الحاج ذي العلم والفخر دنا بارك سلام كعرض مسكين علت نفعته كما قد أتى تبلا على كل ذي قدر إننا لا إله إلا الله إله

بها من قبل سد أخبرني أنا باب الولايات دكوك مالي شيخوتي يا مغترما الهدال نزلان خير الرجع لا إله النجي النجي عير البارية من لا من من جوالا عليه والرسل داس عليه باب الولايات وهو الخلود شيخ تجاه بحر البحور ببر شيخ أنا سيانا يا روكي والليو يا خاصة لنا أي دور يا أم إجابة وكنا لبو ana a seena saamam mi gën ñëpp gis ñëpp romb a joxala mission bi muy taarix bi ku ci nga bëggee doo dem naara baabul wilaaya waaw kooku yaa di Cheikh gis ñëpp romb ñëpp jox ala misiya bi mooy taarix bi ku ci nga fa dee doo mën a